muy quinzième édition sant sëñ Bara te sëñ bas jiite ko di coordinateur bi ñu nekk ci bi mu ko wootee première édition ba fi ñu toll di la wax ne sëñ Bass alaaji mbàkk yu fay mu lay nuyu bu baax ba mu siyaaree sa mbokk yii fi nekk yow ñépp di la wax ne lu mu yëkkati ci sëñ Touba ànd nga ceeg moom lu ko sëñ tubaa jox ci ndigal ba ci Masaalikul Jinaan gi ànd nga ceeg moom yow xam nga moom xam na cofeel gi mu am ci yow waaye xam na tamit cofeel gi nga am ci moom ma ngi lay sant bu baax a baax a baax te fas yéenee ànd ak yow bis bii édition bii dem ko daan ànd ak yow ci édition yee passé waa ndakaaru yëpp ak ñi ma wër ñëpp nga xam ne man maay coordonnateur Massalik maa yore daayira yi nee na ma moo na ma ko daan wootee rek ma woo daayira yëpp góor ak jigéen ak fédération yëpp ñu ànd ak yow ci quinzième édition bii ndax yow day wax dëgg sëñ Baara sax jógu fi mag ngi lay xool waaye xam na ni bëgg na ci yow ak njabootam bëgg na ci yow waaye sëñ Touba tamit bëgg na ci yow. kon nag taalibe yi ndakaaru yëpp ak liy wër ndakaaru incha allah dana ànd ak yow ci bis bi jàpp ci bu baax a baax a jàpp jàppal ci seen bopp waaye di yeesal tamit kóllëre ci sa njaboot gii nga àndal muy wàkk sëñ Baara. nii ñu tooge nii ñoom ñëpp mobiliser ànd ak yow ci bis bii